fanweer aji ji mbokk yi ni déglu asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju ak moom ba faaw am na nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni firawna buuru misira fitnaale sëti ibrahima yi di bànni israel ba def leen ay jaam waaye jàngoon nanu it ne saa su na fexe noot te wàññi bànni israel yàlla dafa doon def pexe ba ñu gën a yokk looloo taxoon firawna ci mujj gi mu jox ndigal waa réew mi ne bépp doom bu bokk ci bànni israel bu juddu tey góor sànni leen ko ca dex ga ngir mu dee waaye yàlla mi ëpp doole seytaane amoon na pexe ngir wëlbati lu bon li firaw na doon def noonu jàngoon nanu ni doomu firaw na ju jigéen fore benn liiru bànni israel bu nekk ci biir pañe ca dex ga doomu firaw na daldi ko yërëm jàppe ko ni doomam tudde ko musa musa nag màgg ci kër na mi bëggoon a faagaagal xeetu israel wante yàlla ci yéenam ju rafet fasoon na yéene jëfandikoo musa ngir goreel bànni israel ci loxo loxoy buur bu soxor bi noonu gisoon nanu ba musa amee ñeent fukki at ni mu dawe woon na dëkk ca màndig ma sëy fa di fa sàmm géttu goroom kon léegi nag dinanu jëm kanam ci nettale bi ba gis ni yàlla feeñoo muusa ca mànding ma woo ko ngir yebal ko ca firawna te génne bànni israel misra nu ngi jàng ci tawret ci ñetteelu saaru téereb gàddaay ga mbind mi nee ay at gannaaw ga muusa di sàmm jur gu gàtt gu gorom yetro muusa nag yóbbu jur ga ca gannaaw màndiŋ ma ca sinaayi tundu yàlla wa foofa malaakam aji sax ji feeñu ko ci tàkku-tàkku safara ci biir as ngarab musa gis ne ngarab saa ngiy tàkk waaye lakkul noonu mu ne teema jàdd seetlu kéemaan gi lu waral ngarab si lakkul bi aji sax ji gisee ne mu ngi jàdd di ngir seet mu wooye ko ca digg ngarab sa ne ko musa musa mu wuyu ko naam noonu yàlla ne ko bul jege si sumil say dàll ndaxte bërëb bii nga taxaw suuf su tedd la mu tegaat ca ne maay sa yàllay baay di yàllay ibrahima yàllay isaaxa ak yàllay yanqoba musa nag nëbb xar kanamam ndax ragal la xool yàlla te aji sax ci ne ko ci lu bir gis naa fitne ji sama mbooloo di daj ca misira dégg naa it seenug yuux ndax ñi leen di jéeñ ci liggéey te ñewante naa leen ndax seeni coono dama wàcc ngir rëccal leen ci loxoy waa misira jële leen ca réew ma yóbbuleen ci meneen réew mu naat te yaatu maanaam ci réew mu bare meew ak lem ca bërëb bu ñuy askanoo ci kanam léegi nag yuuxuk bànni israel agsi na ba ci man te gis naa ni leen waa misira di xiisee kon nag kaay ma yónni la ca firaw na ngir nga génne misira bànni israel sama mbooloo waaye musa ne yàlla man may kan bay dem ca na te génne misra bànni israel yàlla ne ko may ànd ak yow te lii mooy firndeel ne maa la yónni boo génne bànni israel misra dingeen jaamu yàlla ci tund wi noonu musa ne yàlla su ma demee ci bànn israel ne seen yàllay maam moo ma yónni ci yéen dinañu ma laaj nu tudd kon lu ma leen di tontu yàlla ne musa may ki nekk nanga waxe nii ak bànni israel aji nekk ji mooma yónni ci yéen yàlla dellu ne ko aji sax ji di yàllay maam yi yàllay ibrahima yàllay isaaxa ak yàllay yanqoba mooma yónni ci yéen loolu mooy sama tur ba faaw war nanu taxaw fii ndaxte am na lu bare lu nu mën a xam ci jikko yàlla jaare ko ci li nuy soog a jàng ci bi jëkk gis nanu ni yàlla feeñoo musa ci tàkku-tàkku safara ci biir as ngarab bi ko musa gise mu daldi waaru ci li mu gis mu jege si ngir niir ko dégg baatu yàlla di ko woo musa daldi tiit bay lox te ñemeetu la xool lu tax musa tiit ndaxte dafa taxawoon ci jetaayu yàlla aji sell ji noonu yàlla ne musa bul jegesi sumil say dàll ndaxte bërëb bi nga taxaw bërëb bu sell la ci dëgg-dëgg yàlla mi feeñu musa ci tàkku-tàkku safara ku sell la waaw yàlla aji dund ju dëggu ji ku sell la amul werante te yàlla dafa bëgg ñépp ràññee sellaayam ci mbirum malaaka yi taxaw ci jataayu yàlla mbind mi nee na guddeeg bëccëg duñu noppeek naan borom bi yàlla aji kàttan ji moo sell sell sell moom ki nekkoon démb ki nekk tey te di ñëw ëllëg malaaka yi nekk ci asamaan ràññee nañu selaayu yàlla yow mi déglu tey nag ndax ràññee nga selaayu yàlla nanu xalaat tuuti ci lu loolu di tekki ni nu ko gise woon ba noppi ci njàng yi weesu sellaayu yàlla moo taxoon mu dàq aadama ak awa tollu àjjana gannaaw ba ñu bàkkaaree sellaayu yàlla taxoon nanguwul saraxu kayin te it sellaayama taxoon yàlla far niti jamonoy nooyin ak mbëndum ndox ma te ca jamono ja ca topp yàlla jaxase làkku àddina tasaare wa babel ñoom ñi doon fexe bañ kilifteefu yàlla te ci jamonoy ibraayima sellaayu yàlla taxoon mu tawloo safara ci kaw waa sodom ñoom ñi doon bànneexu ci bàkkaar ci dëgg-dëgg yàlla ku sell la di ku ñàkk caaxaan ba tax mbind mu sell mi ne na seen dund gépp sell ni yàlla mi leen woo selle waaye ba tey lu ëpp ci nit ñi ràññewuñu sellaayu yàlla faalewuñu ki yàlla doon mën nanu gis loolu ci ni nit ñi saxe ci bàkkaar te di ci bànneexu gis nanu it seen ñàkk fonk selay yàlla ci li ñuy mbubboo diine waaye gëstuwuñu ci mbind mu sell ngir xam lan mooy kàddug yàlla gu wóor gi gis nanu ko it ci ni ñuy farala tudde turu yàlla cig neen di jëfandikoo ay kàddu yu mel ni inshallah wala barkeb yàlla ci waxi caaxaan mën nanu gis itam seen ñàkk xam selaayu yàlla ci li ñuy fexe jub fa kanam yàlla ci seen pexey bopp te bañ a nangu yoonu njub wi yàlla tëral gannaaw loolu nag ci kaw li yàlla wax muusa ci tàkk-tàkku safara ci biir as ngarab gis nanu ci it ne yàlla du aji sell rekk yam ca yàlla mooy it boroom kóllëre ndax dégg ngeen li yàlla jëkk wax muusa mu ne ko man maay sa yàllay maam di yàllay ibrahima isaaxa ak yanqoba loolu waroon na seddal xolu képp ku bëgg a am diggante bu neex ak yàlla te jege ko yàlla aji sell ji mooy ki nga xam ne moo fasoon kóllëreem ak nit ñu mu bindoon ni nun maanaam ibrahima isaaxa ak ba yàlla kuy sàmm kóllëre la te du wàcc mbaa wor ay xaritam mukk looloo taxoon mu fàttaliku li mu digoon ibrahima bu yàgg yow nag ndax am nga diggante bu jege te neex ak yàlla mi waxoon ak ibrahima isaaxa yankoba ak musa laaj bu am maanaa la ci képp ku bëgg a texe àddina ak alaxira laajunu ndax am nga diine ndaxte topp sart diine taxul kenn jub ci kanamu yàlla li nuy laaj mooy ndax am nga diggante bu wér ak yàlla maanaam ndax gëm nga xebaaru yoonu mucc wi yàlla tëral war nañu ràññee ne diine ak diggante ñaar lañu ay boroom xam-xam gis nañu ne ci jamono ji ñu toll am na ay junni junni diine ci àddina si ci misaal ci réewum Brésil rekk am na fa ñeenti junniy diine ak tarixa yu wuute ñeenti junniy diine yenn dégg loolu doy na waar ndax dafa am ñeenti junni yàlla wala ñeenti junni yoon yu jëm ci yàlla mukk mbind mi neena jenn yàlla képp moo am ak benn ramukat képp diggante yàlla ak nit ñi lu waral nag ay junniy junniy diine ak ay junniy junniy tarixa yu wuute ci àddina si ci sunu jamono ji li ko waral mooy li ëpp ci doomi aadama xamuñu fondement dëgg gi yàlla tegoon ak ibrahima isaaxa ak yankoba xamuñu li yàlla digoon ibrahima ak askanam ci mbirum ramukat bi nga xam ne moo naroon a gane ci àddina ngir goreel doomi aadama ci nootaangeeg bàkkaar xamuñu kàddug yàlla ji dul soppeeku mukk xamuñu boroom kóllëre gi waaye war nañu jëm kanam léegi ba gis jeneen jikko ji yàlla wone bi mu feeñoo muusa ci biir safara suy jër jëri ci ngarab sa jikko jooju mooy yërmande yàlla du aji sell ak boroom kolëre rekk waaye itam yàlla aji yërmande la looloo taxoon ci lu jëm ci bànne israel yàlla wax musa ne ko ci lu bir gis naa fitne ji sama mbooloo di daj ca misira dégg naa it seenug yuux ndax ñi leen di jañ ci liggéey te ñewente naa leen ndax seen coono dama wàcc ngir rëccal leen ci loxoy waa misira jële leen ca réew ma yóbbu leen ci meneen réew mu naat te yaatu lu tax yàlla fason yéene goreel banni israel te yóbbu ci réew mu neex moomu ndax bànni israel yelloo woon na yërmande yàlla ndax ñoo gënoon a baax yeneen xeet yi lu tax nag yàlla fasoon leen yéene goreel te barkel leen noonu kóllëreem ak yërmandeem rekk a taxoon ni mbind mi waxe ne yàlla dégg nag seeni binni fàttaliku kóllëre gi mu fasoon ak ibrahima isaaxa ak yankoba yàlla daldi leen nemmeeku ba yërëm leen yàlla mooy yàlla aji yërmande ji léegi des na leneen lu nu war a gis tey jàng nanu ni musa laaje yàlla lan mooy turam lan la yàlla mënoon a tontu musa yàlla mi nit mënula gis nu mu tudd yàlla moo di ki bind lépp gis lépp xam lépp mën lépp nan lanu mën a tënke melow yàlla wu sax wi ci wenn tur rekk nanu jàngaat ni yàlla tonto woon musa yàlla ne musa maay ki nekk nanga waxe nii ak bànne israel aji nekk ji moo ma yónni ci yéen aji sax ji moo ma yónni ci yéen loolu moo di sama tur ba faaw lan mooy turu yàlla wi ëmb melow wu sax wi ndax dégg ngeen ko mooy aji sax ji yàlla mooy ki nekk mooy ki nekkoon ki nekk ak ki nekk abadan mooy aji sax ji amul njalbeen amul mujj amul àpp amul moroom mooy aji nekk ji ni mu mel démb ak tey lay mel ba faaw du soppeeku mukk mooy aji sell ji mooy boroom kóllëre mooy aji yërmande ji aji sax ji la tudd ndax xam nga yàlla aji sax jooju ndax ràññee nga selaayam ndax yaa ngi bég ci kóllëreem ndax gëm nga kàddoom ndax jot nga yërmandeem ndax wóolu nga aji sax ji yàlla moom ci boppam mbokki déglukat yi fii lanu war a yem tey ndaxte sunu jot jeex na wante ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dina dinanu jëm kanam ci nettalib musa ba gis ni ko yàlla yebale ca na su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 kon nu ngi leen di tàggu ba beneen yoon yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax ci mbirum yàlla aji sax ji bi mu naan borom bi yàlla aji kàttan ji moo sell sell sell moom ki nekkoon démb ki nekk tey te di ñëw ëllëg